asalaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni saa su nekk ñooy ànd ak rajo bi di Rewmi FM Dakar 97 point 5 rawatina seen émission sociale toute la ville en parle samdi bu jot 10 heures jàpp 11 heures ngeen ci ànd euh, ndey kumba Comba tey ji seen émission sociale toute la ville en parle euh, dalal kile di Mamadou Bassirou kebe nekk euh, conseiller du président Macky Sall chargé de l'enfant maanaam di yëngatu ci lépp loo xamante ni rek soxal na ak ak yelleefu Euh, tout tànk yi moom tamit euh, nekkoon na fi sax euh, directeur bu protection pour l'enfance et les groupes vulnérables ñu daal di fas yéene waxtaane lépp lu soxal actualité bi ak ak yelleefu xale yi nga xamante ni dañ koy faral di jalgati file ci Sénégal daañu waxtaane tamit xale yi tout tànk yi nga xamante ni dañu exposé wu ak feebar bile di coronavirus comme ni ngeen ko suivre temps yi rek yéen ngi gis ni am na ay taalibe wala sax xale yoo xamante ni am nañ jàngoro gile euh, lëmbe àdduna di euh, coronavirus file ci Sénégal loolu lépp dinañ ko waxtaanee ak dispositif bi nga xamante ni état wu Sénégal daf ko jël ngir aar xale yooyu lee baax na wala baaxul alan moo des ak yeneen i ponk yoo xamante ni soxal na actualité bi tey ji daañu ko waxtaanee ak kile di Mamadou Bassirou Kébé ñu koy nuyu di ko wax dalal jàmm. waaw maa lay nuyu euh, soxna Ndeye Coumba Mm-hmm. di nuyu aussi auditeurs yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan ak ñi nga xam ne ñu ngi ci réseaux sociaux yi di ñu mm-hmm. seetaan. Mm-hmm. di ñaan aussi yàlla. nangu suñ koor gi te mbas mi nga xam ne mu ngi fi ñu koy wax coronavirus wala Covid 19. Mhm. yàlla dindi ko fi ni mu gën a gaawee balay koor gi di jeex. ay ci amiin yaa rabbi kon mu ngi noonu ñu koy remercier ci disponibilité am euh, Mamadou Bassirou Kébé euh, question bu ma lay njëkk a laaj mooy ban analyse euh, nga def ci situation bi nga xamante ni coronavirus moom la def ci àdduna bi coronavirus wala sax li lee di Covid 19 déjà yow ban jàngat nga ci am ci situation indi na ko euh, ci àdduna bi ak tamit fii ci Sénégal. waa jërëjëf euh, ndey Comba yaakaar naa ne ku nekk xam nga ne coronavirus bi biñ ko déclaré ci Chine ba léegi te mu yegg si fii ci Sénégal le 2 mars. Mm-hmm. Euh, gis nañu ni mu soppalee doxin yi. Mm-hmm. ni mu soppalee relation humaine yi. Mm-hmm. loolu benn la maanaam tey li ñuy wax. tubaab yi ñoom tuddee ko distanciation sociale mhm. mais man du may nangu distanciation sociale man damay wax ne distanciation physique parce que suñu ne sociale rek mhm. dañuy bëgg relations humaines yi yàqu mhm. donc loolu ñu jax mais physique la maanaam ñu s'orienté donc man noonu laa ko tuddee en tout cas sama gis-gisu bopp donc loolu indi na ko ba changé nuñ doxalin euh, boo jëlee déjà ci Sénégal rek avant ngay dem ci àdduna bi fi mu nekk nii xam nga ne ku nekk yaa ngi téye sa doom ci kër écoles yi tëj nañu. Euh, jumaa yi ak jàkk yi tëj nañu. donc loolu si su nga xam ne suñu ngëm-ngëm la suñu diine la. mais boo ko xoolee aussi ñu ci bëri seen marché yi ñu ngi tëj. Euh, suñu ngëm-ngëm euh, boo xoolee aussi suñu économie bi dina ko laal parce que tey ku ci nekk la nga daan liggéey mënatoo ko liggéey. soo jëlee entreprise yi nga jël yeneen société yi c'est la même chose donc lépp loo xam ne nii mënoon nga ko mënatoo ko. donc yooyu yëpp mu ngi fi ba pare nag mu am beneen boo xam ne ñu ngi koy dund mhm. muy tiitaande gi mhm. c'est-à-dire li ñuy wax psychose bi euh, nit ñi di ko dund stress bi ñuy dund loolu yëpp boo ko boolantee ay conséquences dafa am économique sociale mhm. mais religieuse bi dama koy génnee euh, du ma ko nangoo dugal ci sociale bi donc yow boo yooyu yëpp mu ngi fi. nga dem lu tax religieuse doo ko nangoo dugal ci sociale. waaw boo ko ci dugalee da nga koy dulier. parce que religion dafa fort ci doomu aadama. moo tax boo xoolee souvent réaction nit ñi. Euh, réaction yu négative yi. c'est par rapport à la religion. donc moo tax ma ne soo ko ci dugalee ci social rek da nga koy dulier. loolu laa doon bañ. mais ban jàng nga am ni par rapport nga gis ni euh, fii sax en Afrique euh, après dinañ si ñëw mais virus bi réew yi mu gën a faagaagal mooy réew yi ëpp pratiquement aad doole ci àdduna bi. Mm. gis nga actuellement États-Unis li muy dund ndax coronavirus mm. gis nga Chine li nga xamante ni jot na ko dund avant muy maîtriser feebar. bi gis nañ kaawu France Italie Grande-Bretagne ainsi de suite yow ban jàngat nga am ci ci ci mbir moomu que euh, ñoom ñi nga xamante ni ñooñu euh, moo ñoo gën a développé gën a am plateau médical bu baax ainsi de suite tey jii ñoom virus bi daf leen a jaaxal. jërëjëf foofu laa doon jëm si bi ma génnee Sénégal. Mhm. di wax ne effectivement boo seetloo tey ñoom ñoo ñu ëpp ay cas. Mhm. ñoo ñu ëpp ñuy ñuy décédé. Mhm. Euh, ñiy décédé lu tax ñu ëpp la ko. parce que peut-être population bi ñoom seen population bi ay mag a fa nekk boo mhm. xoolee feebar bi mhm. ñi muy gën a faagaagal mooy ñi jëm jëm plus de soixante ans jëm kaw mhm. te ku nekk xam nga ne pays yooyu surtout Europe pays seen population bi dafa màgget donc loolu mun na nekk euh, te même jàngatkat yi loolu la ñu génnee mais beneen bi nga xam ne ni aussi mun nañ ko wax ci euh, virus bi lim indi mooy ne dafa wane ne virus bi seetut Euh, koom-koom seetul puissance su doomu aadama. Mm-hmm. virus bi seetul donc alalu doomu aadama. virus bi seetul euh, diine doomu aadama. virus bi seetul euh, également sexe doomu aadama maanaam góor wala jigéen mag wala ndaw donc ñëpp lay laal donc dafa wane ne tey. dafay mel ni mbiru yàlla la sax boo ko mm-hmm. xoolee. Mm-hmm. ne moo bugg a nit ñi ne leen attention puissance bi ngeen di wane amu leen ko man rek maa yor doole ji. moo tax dafa dafa am yeneen relation rapport yu indi. Mm-hmm. yoo xam ne ni tey euh, xam nga wax nga ko Europe seen plateau médical. Mm-hmm. mais malgré tout gis nga la fa xew. la fa xew euh, ñu ngi def ay prédiction jëmale ko ci Afrique. Mm-hmm. bu depuis ci debut bi ba léegi mais en tout cas yàlla ngi def prédiction yooyu amagul te yàlla bu mu am. parce que man li may jàngat mooy souvent ñoom li ñu yaakaar mooy lu xew rek Afrique moo ci war a gël ndaare mais bii moom. yàllaa ngi def Afrique jëlul ci ndaare malgré nag difficulté yi ñu am. Mhm. mais nag cela ne veut pas dire que ne dañu war a bàyyi suñ bopp. mais mais thèse bi euh, comment dirais-je euh, waa Trump wala waa États-Unis di évoquer que que virus bi mi ngi jóge ci benn laboratoire bu euh, nekk ca Chine mhm. euh, P4 yow thèse boobu nga xamante ne actuellement thèse mo plutôt Trump moom lay euh, dégager mm. parce que moom euh, ut na ay experts yoo xamante ni ñu ngi doon gëstu virus bi c'est quelque chose de naturel mm. wala sax dafa nekk loo xamante ni euh, doomu aadama yi ñoo ko fi sànni mm. gis nga organisation mondial de la santé ñoom nee nañ virus bi c'est quelque chose de naturel mais président bu Amérique nee na ce n'est pas naturel affaire bi mi ngi jógee ci laboratoire bu nekk foofu foofulee ci Chine yow déjà boobu loolu ban jàng nga ci am waaw xam yi mm-hmm. virus bi dañ koy gérer de façon géopolitique. Mmh. mais de façon politique aussi à l'intérieur du pays xam nga tey Trump moom moo wax ak ay nitam. Mhm. mais communauté scientifique internationale bi. ba léegi ñoom waxuñu tees boobu. kon donc nañu bàyyi gëstu yu continuer mais man li ma gën a gëm. Mhm. sama ngëm-ngëmu bopp laay wax par rapport à ça mooy peut-être que euh, Trump nekkoon na ci. préparer ay élections mhm. mais situation euh, économique ak sociale bu Amérique bi nekkoon embelli maanaam mu mu amoon mu ñu jisoon na rafet na mhm. baax na euh, loolu ci moo doon bilan am pour mu dem ci élection présidentielle yi ñu jëm pour gagner ko mhm. fi mu nekk nii nag mu tiit tiit goo xam ne ni sama gis-gisu bopp la nag loolu mu analyse la ñuy def rek mu mhm. tiit peut-être na nekk ba nga xam ne nii lam yaakaaroon tas mu bëggoo ut nag ay bouc émissaire mhm. mais pour le moment li muy wax amul dara loo xam ne communauté scientifique mhm. internationale mi ngi ci mais dafay def géopolitique parce que wax naa la ne relation internationale yi dafay changer fondamentalement comme li ñu ay nouvel ordre mondial ainsi de suite waaw affaire yi ñu kii euh, waaw xam nga même nouvel ordre mondial am ay interprétation waaw yu ci nit ñi def yoo xam ne sax c'est connoté négativement mhm. mais nouvel ordre mondial boobu boo dégloo président par rapport ak lim ci théorisé den wane na ko xam nga mooy tey dañoo toogoon domination am ci tubaab yi jëm ci africain yi mais virus bi dafa wane ne tey kat attention ñun mun nañu demal suñu bopp parce que boo xoolee Sénégal Afrique war na mën a relever profiter de la situation capacité de résilience économique et sociale yu mhm. africain yi mhm. ñëpp a ciy teg seen bët tey par exemple suñu pren jëlee l' exemple du mhm. Sénégal mhm. avec le programme national de résilience économique et sociale wane ne ne ñu génnee mille milliards yu président def mhm. ça ça veut dire que Sénégal am na capacité à faire face ñi doon wax par exemple naan wuy on est en banqueroute et cetera mais boo xoolee aujourd'hui euh, Ndeye Comba euh, lii prouve prouve na que ne on n'est pas en banqueroute on n'était pas en banqueroute bi ñu koy wax Afrique aussi foo dem ñëpp a ngi jël Côte d'Ivoire Afrique du Sud partout Nigéria euh, donc partout dans en Afrique les gens sont en train de faire face à ce virus de la façon la plus la plus sérieuse la plus rigoureuse kon mm. donc loolu déjà nouvel ordre mondial bi président di wax. mu ah mais ba Bassirou ñu bëri dañu jàpp ne nouvel ordre mondial boobu c'est c'est maçonnique parce que yàgg nañ dégg terme bi. waaw c'est un terme euh, maçonnique. Euh, waaw. non je vous dis que en toute honnêteté. waaw compte dara bu ñu ko waxee. Mm. dangay xool fee ko accompagner. Mm. nga xool nga jox ko contenu. mais waxuñu par rapport à ça mais c'est du point de vue relation. internationale c'est du point de vue géopolitique c'est du point de vue géostratégique. kon déclaration bu président Sall n'a rien à voir avec la franc c'est que. Mm. ordre mondial. Mm. mais ci tubaab mooy euh, doxali àdduna bi ni ñu ko organiser. Mm-hmm. mais ku nekk xam nga ne ñun dañu nekkoon. dañ ñu relégué woon lépp lu bon eh, xoolal Afrique ni mu bañee par exemple bi ñu buggee testé euh, comment dirais-je euh, vaccin yooyu ci hmm. bugg ñu def ko cobaye yooyu yëpp ci nouvel ordre mondial bi la l'Afrique entre mu ngi wane adduna bi ne leen écoutez man man am naa capacité à faire face nga jël tooguñu dans la recherche soo jëlee tey à commencer par le Sénégal mm-hmm. bi ñu ne euh, chloroquine bi mm-hmm. ñu koy coow France mais suñu experts yi ak professeur Seydi dañuy jël seen responsabilité defar seen protocol mais testé ko muy jur lu résultat yu leer nga jëm Madagascar bi nga xam ne dañuy peut-être ñu naan pays bu ndaw la wala yooyu mm-hmm. mais mu créé indi Covid organique gars yi def pression adduna bi yëpp def pression ne buñ ko buñ ko testé mais nos pays africain jël leur responsabilité nos chefs d'État mhm. ba pare indi garab googu jox ko scientifique yi du corps médical mhm. ñun Sénégal déjà boo xoolee am nañu un protocole sanitaire boo xam ne ni professeur Daouda Ndiaye donc yooyu mhm. yëpp dafa am lu muy wane ensuite solidarité bi am ci biir Afrique euh, bi ñu Union africaine dañu dem président taxaw ne non dañu bëgg ñu dindi la dette parce que ku nekk xam nga ne dettu Afrique Hmm. daf ñu topp depuis la colonisation sa à dire que ñoom ñoo ñu ko teg tubaab yi ñoo ñu ko teg man damay wax ne sax du dette mais dañ ñu war a fay ñoom donc yooyu yëpp nit ñi jéngu jóg président jël leadership bi porté ko ba ba nga xam ne nii PAP bi ak waa FMI e Banque mondiale ñëpp di ko ci soutenir par rapport a ça. Hmm. ak certains pays comme Macron et cetera donc yooyu yëpp dafay wane ne l'Afrique c'est prendre les initiatives. Hmm. mais moo tax euh, ñu créer benn fonds. boo xam ne ni ci Union africaine Sénégal ci boppam jël un milliard def ci donc yooyu yëpp. si si loolu daal lañ mën a dégg nouvel ordre mondial. noonu lañ ko mën a yaa ngi gis malgré euh, corona mi ngi def ay ravages. des mm-hmm. des centaines de morts par jour. Mm-hmm. Euh, ci réew yu baree bare. Mm-hmm. mais am na ñoo xam ne ba léegi ñi ngi Sénégal. nee nañ gëmuñ virus boobu nee nañ loolu amul euh, maa ngi dégg sax professeur Omar Diagne di wax ni tole bi nga xamante ni lii lee di Covid 19 andi na ko wala coow li wala niñ si sonalee nit ñi tënk nit ñi kenn liggéeyul ainsi de suite. jaru ko parce que am na yeneen feebar yoo xam ni euh, mi ngi rey plus ah que Covid 19 euh, ñu ngi fi bari na bari na su ma jëlee exemple ñi nga xamante ne rek ñoo am li ñuy wax insuffisance rénale euh, instant bi sonn nañ ñoo ñu dañuy faatu comme ay weñ donc mu ne tole bi biñ ko jox jaru ko maanaam ni ñuy coowee Covid 19 Covid 19 ba tax ñëpp seen liggéey arrêté économie bi taxaw nee na loolu jaru ko am na ñuy wax ni sax gëmooñ ko lii dafa am lu làqu ci gannaaw ainsi de suite mm. tey ji yow waaw xam nga man duma spécialiste ci wàllu wér gu yaram débat boobu. mais yaa ngi koy dégg waaw non non damay mm, ñëw. Mm, mm, maa ngi lay tontu dinaa la tontu. Euh, da day am mais tey. man lépp su ah, le profane que je dama gëm ne. Euh, am na feebar yoo xam ne du wàllaate xam nga li ma la wax diabète du wàllaate insuffisance rénale du wàllaate et cetera mais. mais li muy faat yeneen feebar yi. du waaw mais mais mais nag. gaaw gi. ñaata période sur un an la ñuy wax mais bii nii di coronavirus ñu ko déclaré dafay wàllaate wallaate bu gaaw boo xam ne nii tey amaguñu quelques mois mu toll fii ci ay millions. est-ce que comprendre donc bu fekk continuer loolu dafa dem at continuer di dem. Mm-hmm. donc bii mun nga wax xayma ne at mu jot feebar bii nangam lay am mais bii mënoo ko ko xayma mu ngi dem kenn kaj fan la jëm donc contamination bu gaaw bi ak yooyu man mënuma nangu ne war nañ ko mun a comparer. Mm-hmm. par rapport à ces maladies quand bien même que ñooñu kenn waru leen di bàyyi ginnaaw et je pense que président de la république ci dernier conseil des ministres bi jox na directive ministère de la santé neleen leen attention bu leen fàtte euh, nu mu tuddati la prise en charge mm-hmm. euh, des autres euh, types de maladies mm-hmm. na ngeen ko ci boole malgré que am nañu urgence humanitaire mais est-ce que nekkul tamit Bassirou Kébé Euh, le président Sall euh, dafay topp rek dynamique gu maanaam fu Macron xool rek mu xool ko lu Macron def France rek mu def ko France euh, est-ce que nekkul loolu moo tax mu créé fi ay couvre-feu tënk nit ñi ainsi de suite est-ce que nekkul ni tamit dafay topp benn dynamique gu Macron même bu fekkente ni feebar bi situation bi nga xamante ni am na ko ca France amu ko fii si Sénégal il faut le dire yegg guñ foofu mais est-ce que nekkul ni tamit peut-être dafay def genre copier-coller rek lu mu gis français yi def wala le président français commencé def mu daal di koy bëgg a copier fii au Sénégal c'est vrai que ba léegi ñemewul peut-être sax euh, jàpp na ni euh, munagul décréter li nga xamante ni moom mooy confinement fii ci Sénégal ak euh, fi ñu toll mais est-ce que jàpp nga ni li ñuy wax président Sall dëgg la waaw wala déet dafa am mesure yoo xam mi ngi koy jël fii ci Covid 19 bi parce que dayo bi yeggul foofu mais dafa koy jël uniquement parce que mi ngi xool ci li nga xamante ni président français bi mi ngi koy def di Emmanuel Macron. copier ba ci école yi sax ñu ngi wax ni loolu ko nangu waaw déjà dama lay jox ne benn exemple mhm. brossé nga ko mhm. euh, confinement France def ko def confinement total mhm. est-ce que topp nañ ko pourtant il y toute une pression nationale pour président def confinement mais dafa def ay analyse certains paramètres yoo xam ne ni muy économique sociale ci Sénégal mu xam ne ni confinement c'est pas la meilleure formule defu ko kon toppul toppul France foofu par rapport à ça beneen bi mooy boo jëlee France école yi tijji nga joxe exemple boobu mais école France yi tijji ñoom dañu commencé ci maternelle ak yooyu mhm. te ñoom ñu ngi commencé le onze ndi kon ñun xanaa dañuy wax na ñun tamit dañuy commencé à partir de mais ñun dañoo suivre modélisation suñuy expert maanaam ñoom seen xayma ci feebar bi ak naka mhm. lay évoluer mhm. ba président proposé ne le 2 juin mais na classe d'examen yi commencé fële maternelle lañ wax ak yooyu fii on parle de classe d'examen CM2 troisième ak terminale donc vous voyez kon boo xoolee méthode yi du benn kon copier coller mënu fa am euh, ensuite ñoom def nañu seen euh, seeni appui ak seen système de protection sociale mais fii Sénégal boo ko xoolee defee wuñ noonu kon donc man fan laa gis copier coller maintenant nag dafa am loo xam ne c'est standard maanaam scientifique yëpp dañ ciy d'accord mm-hmm. ne nii lañ war a doxalee loolu bu ñu ko proposé président à travers le comité national de gestion des épidémies mhm. yooyu la ñuy wax ay protocole standard mm, euh, yooyu Sénégal mënu ci génn mhm. boo ko xoolee France noonu lay def Amérique noonu lay def euh, euh, Allemagne ou Chine donc yooyu Sénégal mënu ci génn ko jàpp nga ni ko piewul dafay jël ay décision par rapport ak réalité yi am fii ak feebar bi fi mu toll gis nga sénégalais ñiy wax loolu mhm. ñoo fi toppoon naan wuy na def confinement bi France defee ñoom ñun ñoo doon. wax confinement nañ def confinement confinement mais nanguwu la def. mais malgré couvre-feu bi gis nañ ba Bassirou dafay gën a yokk. Euh, non mais ban niveau de yokk. Mhm. la ñuy wax. no moment bi ñuy jël couvre-feu bi. waaw mais ban niveau de yokk. Mhm. moom moo am parce que est-ce que bu couvre-feu bi amuloon. Mhm. niveau de yokk bi ñuy wax du ko ëpp. xam nga lu tax ma wax la loolu. dañu naan yokk bi amul benn njëriñ comme France amul benn njëriñ. Euh, euh, non non xam nga ñun defuñ confinement. Mhm. <laughs> encore une mais fii couvre benn njëriñ. Euh, lu tax nga wax loolu. parce que nit yi ñu ngi gën a yokk ñu am Covid 19. waaw faatu yi ñu ngi mm. gën a bari. on est quatorze décès. mais loolu day am obligatoirement dans tous les pays mais am na foo xam ne. Mhm. fa la gën a yokk. da ngay xool euh, kii de pro euh, de propagation bi. Mhm. Euh, to de propagation bi ak to de décès. nga comparer ko ci nga jël nombre de mois yi ñu am ñun ak ñeneen ñi li am nga comparer loolu c'est-à-dire que bu ñu deful loolu mënuñ ci wax dara ensuite tey man damay wax ne couvre-feu su amuloon est-ce que nit ñi ñu ngi xalaat ndey kumba mhm. bu baax guddi ci lañ daan dem nga baal ma nag. Mhm. di doxantu. boîte yi di fa tase. Euh, mais nga gis ci koñ bi nga nekk mhm. euh, xale yi tekk fa ci koñ ba teg seen i caaf ak seen ataaya guddi lañ koy def duñ ko def bëccëg mhm. dibiteri bi ci koñ bi wala tàngana bi ci koñ bi fa la ñuy tasee mhm. guddi euh, te gis nga foofu ni mel ensuite Euh, fii lañ daan nga am sa coro nga baal ma si expression bi mm-hmm. dem nañ ko wax mm-hmm. euh, guddi lañ daan def yooyu gis nga temps ay ay prostituées ñi nga xam ne dañuy taxawaale ci mbedd mi nga mm-hmm. baal ma ci expression bi euh, def nañ sorti di wax naan ñoom gisatuñu kenn mais guddi lañ daan gis nit ñi donc yooyu dafa doon ay chaîne de transmission du virus kon ñu xeeb guddi gi couvre fa boobu ñoom comprendre ñu loolu donc moment guddi comme guddi dafa bëri bëri sutura Euh, lu bëri dis nga décision yi président jël daf ko tëdd dafa tenir compte ci suñuy sociologie hmm. maanaam ñun ñuy dundee mais da ngay wax li Bassirou Kay parce que da nga ànd ak président wala da ngay wax lii parce que wala gëm maa ngi lay gëñal ci alxuraan hmm. ak koor gi ñu nekk ne loolu laa gëm hmm. analyse yi may def ni loolu laa gëm euh, su ma gëmul dara damay noppi ci loolu parce que sama niveau de responsabilité di xelal njiitu réew mi su jëlee benn décision boo xam ne nii man gis naa ne peut-être lii kiiwul man du ma ci commenter. mais est-ce que njiitu réew mi mi ngi lay déglu ci ay conseil parce que d'habitude dañuy wax président Macky Sall du déglu kenn bu ñu sukkandikoo ci euh, sorti Amsatou Sow Sidibé euh, est-ce que yow njiitu réew mi mi ngi déglu say xalaat surtout sax après dina ñëw ci li nga xamante ni moo la gën a soxal di la protection des enfants est-ce que njiitu réew mi mi ngi lay déglu est-ce que bu fekkente ni mi ngi lay déglu la nga koy wax après nga xool la muy def di nga jàpp ni am na lu mu si appliqué. dinaa la wax wax leen. Mhm. li ma jàng. Mhm. nekk biir palais nekk présidence de la république. Mhm. képp ku jaar ci procédure administrative normale. pour sa xalaat yegg ci président daf fay yegg boo jaarul ci procédure bi nag mënut fa yegg. xam nga dafa am yoon yoo war a jaar boo mm. defaree sa note tey mm. en mm. tant que conseiller mm-hmm. note boobu am fu mu war a jaar dem ci président de la république boo fa jaarul taxaw di wax am na ñoo xam ne sax dañ du def note di wax dégluwut kenn président de la république mais même ni nga toogee fii sax wax mais président dégg la wala si média yi loolu mën na si jël waaw mais mën na man tey waaw su ma amee lu may jox président parce que tuuti naa ci wax ko sax ne ko Euh, parce que daf ma jël pour sama xam-xam. Mhm. pour ma conseiller ko ci wàllu xale yi. Mhm. mais tey duma toog ci rajo bi naan wax naa ko lii ak lii ak lële mais man leer na ma. Mhm. ak koor gi ñu nekk ne man li ma koy jox ci xalaat li ci baax mu ngi koy jël. te ñu ngi koy mu ngi feeñ sur yaa ngi koy gis di ko santé man honnêtement maa ngi koy gis voilà Mamadou Bassirou euh, Antonio Guterres moo njëkk a génn daal ne à ah, Covid 19 bi dina def ay millions de morts en Afrique euh, gis nga démb xam bërki démb rek organisation mondiale de la santé encore daal di ne euh, ñoom ñu ngi prévoir cent quatre-vingt-dix mille décès en Afrique am na ñu ne sax dafa am lu ñuy préparer Afrique waaw wala déet ñu ngi ñu ci ay vaccin même test yi nga xamante ni sax actuellement pour xool ba xam am nañ covid 19 wala amuñ covid 19 am na ñoo xam ne sax amuñ si confiance parce que dañu jàpp ni dafa rax wala nasaraan yi dañu bëgg nasaxal der bu ñuul dañu bëgg a nasaxal Afrique loolu yow lan nga siy xalaat parce que prévision yi ça revient ça revient et puis ñoom ñu ngi insisté ban jàngal nga ci am waaw en tout cas man li ma constaté en tant que profane mooy prévision yooyu ba léegi amagul mm-hmm. waxoon nañ fi lu gën a garaaw mm-hmm. ce sera joxe yeneen stats période telle période boobu. Mm-hmm. ñu ngi koy traversé gisaguñu ko. d'ici le mois de mai lañ doon wax fi mu ne nii indiwaat nañ yeneen statistique mm-hmm. mais man pour man damay positiver loolu maanaam loolu ñuy def di wax am catastrophisme vision catastrophique ci Afrique. Mm-hmm. dafay tax africains yi gën a góorgóorlu. pour loolu bu mu am boo xoolee discours suñu chef d'État yi dafay tourner autour de ça sax. pour que ñu fexe ba nga xam ne ni prévision yooyu am. ñu joxe bu mu am ci Afrique. Mhm. xam nga di ñuy wax afro pessimisme dafa am am na ñoo xam ne ñoom dañ gëm ne même o dans le milieu scientifique quand tu prends mais Cheikh Anta Diop. Mhm. avec le carbone 14 ak yooyu. mais à l'époque mais tubaab yi dañ ko contrôle et cetera am na yoo xam ne nii même du point de vue scientifique. Mhm. par rapport ak moom progression euh, du point de vue académique universitaire mais yooyu yëpp tubaab yi dañ ko xeexoon parce que bëgguñu doom aadama nit ku ñuul. indi lu bees mais lii crise bi mhm. Afrique def ci wane ne moom mën na indi lu bees et jë joxe naa ci exemple tout à bi ñuy mhm. démarrer mhm. donc pour man euh, euh, jarul sax ñuy ñuy mer wala naxarlu loolu européens yeeg ñu di wax ci Afrique parce que xaj na seen yéene la mais yéene boobu ñun ñoo war a def de sorte que du point de vue comportemental communauté bi individuellement ak collectivement ñu fexe respecte li nga xam ne mooy tax bu buñ ko defee jàngoro ji du law loolu suñ ko defee maintenant avec le niveau stratégique politique ñooñu jël ay décision yu baax ba nga xam ne ni tey suñ demee Bassirou ba amatuñ askan wi amatuñ confiance euh, si li ma bëgg wax si test yi maanaam ndey kumba tey am na ay symptômes wala ndey kumba jékki na jékki ne xaaral ma dem xool ba xam am naa Covid 19 wala aw ma ko maanaam test yi amatuñ ci confiance am na info yoo gis muy circuler ci réseaux sociaux et tout mm. mais bu fe ak tamit test yi ñan ñoo koy def mm. c'est c'est c'est encore la France xam nañ kii bi koy def ainsi de suite clinique Pasteur et tout yaa ngi gis ci réseau sociaux yi ay rumeur yuy daw askan wi naan ñoom amatuñ ci confiance parce que dafa mel ni test bi kuñ ko defar rek pratiquement euh, boo moytuwul sax dafa am lu rax ci biir wala mën nga am coronavirus. waaw ñaata yoon ñaata nit parce que encore la France revient parce que test bi clinique Pasteur ñoom ñoo koy def encore. c'est la France ñaari aspect sa question bi. waaw benn bi mooy clinique Pasteur. fii ci Sénégal. Mhm. mais ña fay nekk di def test yi duñu ay français. Mhm. ay sénégalais amul tubaab yu koy def foofu sénégalais yi ñoo fa nekk ko jiite sénégalais la donc nañu ne te te nañu bàyyi yenn xalaat yoo xam ne ni du ñu jëmale fenn parce que sénégalais ba nekk foofu du nangu yenn yi parce que gënoo ko bëgg man miy wax loolu par exemple naan way test yi tubaab bi moom ma fa nekk moo ma gën a bëgg réew mi sax bu ñu ko toppee donc boobu benn la donc bu ñu am du par rapport te du léegi boo xoolee li tax mm-hmm. test yi yokk mm-hmm. du ñooñ rek a koy def professeur centre mu ngi def. ay test te mhm. Séné moo ko créel boppam. Mhm. mais donc te même. mais tout au début clinique Pasteur moo ko doon def d'accord mais. Mhm. mais bi professeur Souleymane ñëwee euh, ak kii am centre am ci la test yi yokk ci la cas yi yokk et puis nañ di def lecture mais bu fekkee man dama naan def téeméeri test. am ñaar fukki cas tey ma def junne test ak lu teg. dafa a am juróom fukk juróom-ñeent. mais <laughs> boo ko jëfee pourcentage bi kon cas yi ñu ngi transmission baa ngi wàññeeku donc dafa am fourchette boo xam ne boo xoolee Sénégal topp ensuite ñi nga xam ne nii gëmuñu affaire bi. Mhm. man maa ngi koy suivre ay ojo ñuy def ay ojo ak yooyu mais dama ne ñooñu duñ ay patriote. Mhm. gis nga réew soo ko buggee mu leer la ne lii ku ne ku gis nen nen ne ngi c'est-à-dire que noo gis nen ba pare ne du nen sa à dire que nit ñaa ngi feebar ñu ngi leen di yóbbu ñu ngi sentir symptômes yi. ñu ngi testé muy positif ñii ñu ngi wér ñii ñu ngi gaañu di décédé waaw mais loolu ay preuve la xanaa doo ma wax ne suñu professeurs yi nag nekk Sénégal. Mhm. danañ créer situation ay ay ay fausse information yoo xam ne ni man leer na ma ne man ñoo ma gën a bëgg Sénégal yow ñoo la gën a mhm. bëgg Sénégal. Mhm. parce que bëgg Sénégal moo tax jëluñu seen i xam-xam dem mën a ji ko feneen. suñu médecins yi suñu personnel de santé bi yépp laa wax nga jël ko ci suuf ba ci kaw mais li ñuy dund bu doon lu ñuy créer la. duñ ko nangoo dund. Mhm. mais am na ci ñoo xam ne ci ñoom dal na leen. Mhm. mais ñu bàyyi yenn yi parce que tout simplement dama man des fois. dama naan waaw dama naan des fois. Mhm. pour yàq la. c'est-à-dire que pour yàq la xam nga am na audio yoo xam ne nga koy déglu. ñaaw na ñu def la ci euh, fenn. Euh, nga euh, ñu ne ñu ngi lay seet. ba xam am nga jàngoro ji amuloo ko ngay wax waxu ay corook ay noos naak ak xale yu jigéen yeeg def naa ni di def audio yooyu ñooñu pour man sama man laa wax sama gis-gisu bopp personnellement. Mhm. waxuma en tant que conseiller du président de. Mhm. mais man basket dama ne ñooñu yoon daf leen war a jàpp. Mhm. voilà ñu ngi leen di fàttali ngi suivre euh, seen émission sociale toute la ville en parle tey jii Ndeye Comba Moreau dalal Mamadou Bassirou Kébé nekk conseiller euh, bu président de la République chargé des droits de l'enfant Bassirou Kébé beneen euh, sujet d'actualité lépp dafay laalaat Covid 19 di jumaa yi ñu tëj. période bi ak koor gi am na ñuy wax ni nañu ubbi jumaa yi gis nga démb fee bi am fële ca euh, na Niassène bu kaw Kaolack nga xamante ne dañu convoqué imam bi et tout euh, téye ko quelques heures parce que foofu dañu fa julli te gis nañ tamit si yeneen cité religieuse ñu ngi fay taxawal ay julli juma àjjuma donc ça pose problème yow ban xalaat nga ci am am na ñu naan mais lii dañuy xeex diine bi euh, ni ñu organiser peut-être marché yi organiser ko grande surface yi mën nañu organiser noonu au moins dem mën di julli le vendredi euh, comme niñ koy wax comme que fii dañu nekk ci réew moo xamante ni ay croyants lañu dem ñaan euh, yàlla jëlee fi mbas mi wala sax dafa nekk loo xam ne dafa sacré maanaam tëj gi ñu tëj jumaa yi dafa nekk lu sacré ban jàngat nga ci am ak fee yi am démb Léona Niassène nga xamante ni ñu bari ñu ngi koy ñaaw ñaawlu. waaw xam nga man mbiru diine. Mhm. ci Sénégal fii. Mhm. damay moytu di ci débattre. waaw Ndeye Comba parce euh, boo waxee rek ñu ne. kii nga gaaruwaale kële nga wax wax nga lële c'est-à-dire que euh, mais ñu nangu benn mbir mm-hmm. ndey kumba moo di keneen màkka fa la yonentu yàlla sallallahu alayhi wa sallam nekk yaa ngi dégg mm-hmm. bu ñuy julli fan la ñuy jublu xibla bi foofu la mm-hmm. du dëgg kon donc ñoom ñooy euh, li ñuy wax berceau de lislaam tey ki nga xam ne nii moom moom yëf yi ne fa ki nga xam ne nii moom alxuraan moo tax mu wàcc mhm. ne ñoom seen bopp ñu def loolu mhm. après ñun Sénégal nag ñu ne voilà euh, état bi wax nañu def lii pour que protéger nit ñi parce que nag tey booy fekkee bu fekkee da ngay bala ngay tal di julli dafa fekk nga wér te ku ne mën nga julli sa kër du dëgg mhm. Euh, kon donc foofu muguma ci dugg di di di. mais est ce que c'est logique tamit Bassirou. bi. voilà ma rek. Mhm. parce que wax nga marché yi. Mhm. Euh, soxna Ndeye Coumba. Mhm. fépp fu am lieu de rassemblement. te du vital xam nga dafa loo xam ne ni boo ko deful dee. boo lekkul da ngay dee. dëgg la wala du dëgg. ku lekkul toggal semaine lekkoo naanoo ndox mais marché bi. boo ko tëjee tey nit ñi ak situation socialu au Sénégal. Mhm. fan la jëlee ji luñ lekk fan. mais buñ comparé lu comparé wut par contre tey ki nga xam ne ni teg nañ jàkka ji mën na julli biir këram <laughs> mais julli ji arrêté wut peut-être prière collective bi moom moo arrêté mais ku ne mën nga julli sa kër ñaan dajale sa njaboot ngeen julli nga ñaan. Eh, eh, disposition yi nga xam ne ni ñenn yi ñu ngi koy jël. Mhm. pour respecter distanciation physique bi ci fa ñuy jullee mais loolu seen initiative bopp la ñoom ñoo am ñu jël ko def ko mais imaginel nga dajee dajale lu mat junni nit fenn ñu ñu di kii ma maa ngi jox benn information du ma def publicité. Mhm. Euh, ci benn euh, kii ñuy defar mburu mhm. ñu ngi wax ne affaire boobu daf leen laal Covid bi am na kum fa la. Mhm. mais jour ba ma fa jaaree man wàcc. jaar fa pour jënd mburu gis nit ñi di tàncaloo ci biir ba fay xeex mhm. laa ne fii musiba jàngoro man na fi am mhm. dama ne mën na fi am donc bu bu ñu bu ñu bu ñu comparé loo xam ne ni munta nekk te l'islam daf ñu ko jàngal mais mais fu mbas amee mais nit ñi yàgg nañu julli seen kër donc pour man problème mais instant bi président Sall mi ngi wax affaire ubbiwaat e, école yi euh, si juin bi. mais dégguñ fu mu waxee ubbiwaat jumaa yi. waaw xam nga école yi xam nga ni c'est compliqué te dinañ fa teg dispositif. maanaam question bi ma la posé mooy dispositif bi ñu teg. pour peut-être rentre euh, rentrer encore bàyyiwaat élèves yi dem jàngi wala dispositif bi ñu teg pour marcher ainsi de suite hmm. même bu dee benn jour sax c'est le vendredi ñu teg benn dispositif bàyyi jumaa yi taxawal waaw xam nga man. waaw c'est que Ndeye Comba yaa ngi may dugal ci débat religieux boo xam ne. waaw vraiment président Macky Sall bu. non non non xam ngeen ba léegi. waaw président non du débat religieux parce que Bassirou sénégalais nga. musulman nga ci réew mi nga nekk. waaw mais xam nga ñu ñu moytu. Mhm. amalgame. Mhm. c'est-à-dire buñ di waxloo nit njiitu réew lu mu waxul. xam nga mesures yi ñu jël. Mhm. c'est des mesures d'ordre général. adduna bi yépp ko jël. n'est-ce c'est des mesures standards. adduna bi yëpp ko jël muy réewu jullit mu nekkul réewu jullit mhm. du jumaa yeeg jàkka yi kese mhm. église yi aussi dañ leen tëj mhm. man mii jullit ak xan yaa ngi dégg ci loolu lañ ma yar loolu laa nàmp yaa ngi dégg euh, suma maam Abdou Bigué Kébé dafa sampa dëkkam def fa euh, jàkka def tabax fa def fa teen di fa bay am daara ba mu koy def ba tey ci kon yi gën a naat ci kër ma jëbal ca la bokk. Mhm. kon donc kon man loolu dund naa ko donc kon jullit axan la mhm. mais problème bi mhm. mooy que ne nañ di seet aussi sunnit yi liñ ñuy wax euh, ñu roy ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aussi c'est important ñun ñëpp fu mooy war a doon suñu royukaay mais suñ borom bi tegul ñu loo xam ne nii daf ñuy lor lépp luy loraate en résumé du ma dugg ci ay détails mais lépp luy loraate dañ ko war a moytu loolu la ñu sant mais yow. d'accord bi. Mhm. Mhm. nga tëj ko. dem xale yi war a dem jàngi. jàngiwuñ ñu am année blanche. mais julli amul année blanche. ñaa ngi julli sa biir kër. nit ñi ñu ngi or. Mhm. nit ñi ñu ngi or ba weeru koor yi ba léegi ñu ngi julli. Euh, euh, tusubaar rek takku ak loo jël ñu ngi koy julli ku ci ku ci ku ci ku ci gëm ne war nga julli laa wax mais yàqul pratique religieuse bi maintenant dajee biñ doon dajee pour julli en commun peut loolu mooy problème bi. juste une minute testament mais buñ comparé lekk gi. Hmm. buñ comparé école bi. te école bi disposition disposition yi ñu war a jël disposition yooyu. Hmm. jàpp nga ni nguur gi am na pour teg disposition. Ah oui, pour euh, euh, wàllante ba ñu am ci école yi. exactement comme comme lan. Euh, xam nga du ma dama nekk ci commission buy xalaat ci loolu. Hmm. donc du ma mën a génne mais ma bon déjà directeur de la formation wax na ci. Euh, bu ministère ak communication bu ministère de l'éducation mhm. mais man mënuma dugg ci ay détails mhm. mais li ma la mën a wax mooy mhm. ñu ngi xalaat ak IA yi mooy inspecteur d'académie ministère de l'éducation porté ko parce que yàlla dafa def ne man comme damay xelal njiitu réew mi ci lépp lu jëm ci xale am na ñoom conseillers yu xelal ci mbenum njàng ak conseil mais man lépp luy am dinañ ma ci woo par rapport ak ñu xool naka la koy xale bi di dundee surtout mais li ma la mën a wax sans entrer dans les détails mooy la ñuy njiitu réew mi te autorité sanitaires yi di ko valider. Mhm. à travers un protocole de, de euh, sanitaire mooy que ne xale yi danañ aaru maanaam dinañ respecté distance bi disposition yu ñuy jël dina tax aussi ñoom duñ jaxasoowante seen biir mhm. dinañ porter masque dinañ raxas seen loxo yi ak saabu te bu ñu ñëwee seen kër dinañ sensibiliser parents yi ba nga xam ne ni bu ñu ñëwee seen kër la ñuy njëkk def aussi mm-hmm. mooy raxasu Bassirou nan la ñuy respecter distanciation physique comme ni nga koy waxee ci classe yi nga xamante ne déjà da ngay gis classe boo xam ne euh, dans les normes euh, quarante la wala def ñu def fa quatre-vingts wala mm. cent élèves mm. mais classe boobu suñ ko ubbi waatee naka la ñuy respecter norme distanciation physique sa pose problème comme fu mel ni sax université encore foog ma wax ko da ngay dugg si benn waaw voilà exact mais c'est à l'horizon peut-être bu ñu waaw euh, il faut aussi avoir des des faire des prospections positives. Mm parce que tey 2 juin bi nee naa la ci ay modélisation lay nit ñi sukkandiku mais président tëbul rek wax 2 juin ay borom xam-xam. ñoo ko wan ko jàngoro ji nii la war a évoluer peut-être su fekkee ay condition ay hypothèses mhm. lay doon. Mhm. donc hypothèse buñ dégagé la. waaw ay non ma mhm. maanaam ñi koy xelal. ci loolu si mm-hmm. ci wàllu wér yaram bi naka la maladie bi war a évoluer ak yooyu dañ koy tegal hypothèse ne ko bu fekkente ni def nañ nii comporter woon nañ nii wala def nañ nii nangam euh, fii ak fin mais peut-être tendance bi dina def nii dana def na loolu moom la ñuy wax modélisation mais ñu sukkandiku ñoom nag ci ay statistiques yu leer mm-hmm. euh, donc président bu loolu amee ba mu dajale yooyu moo tax ñuy wax duy concerté wu président ñëpp lay waxal président day toog sax di am ay conseillers yu muy woo téléphone di leen di leen laaj. Hmm. pour revenir pour pour delluwaat loolu. donc euh, su fekkente ni loolu am na mu wax la date du 2 juin mais 2 juin boobu dina fekk nag lañ waxoon comme hypothèse ne su fekkee lii am na loolu am n'est-ce pas. Hmm. Euh, donc foofu moom moi je vous dis tout de suite que dafay déglu ñi nga xam ne ni ñoom ñoo war yor wàllu xam leen moom jogul rek wax ci coobareem te en toute honnêteté amul lenn xam ne dina ko ci politiquer mais université bi ngay wax kenn tuddagut ko. Mm-hmm. ñu ngi ñoom ñu ngi réfléchir. classe d' yi lañ nekk ñu ngi réfléchir aussi nee naa la mënuma dugg ci ay détails. ay détails mais mais parce que bugguma. Mm-hmm. Mm-hmm. bugguma wax loo xam ne fi nit ñaa ngi ciy xalaat. Mm-hmm. ba pare euh, euh, vraiment euh, kon man loyalu ma républicain wu ma. et sax ñu may confier dara. voilà dafa am lu ñuy wax confidentialité. fekk ki ko war a wax waxut ko. waxut ko man duma ko wax. voilà test massif bi loo si wax am na ñu koy laaj. d' accord nga si waaw wala déet eh, man profane laa de. xam nga man aussi. vraiment duma spécialiste ci loolu. mais man li ma xam nañ def test massif quoi pour xam carrément ñi ko am ak ñi ko am question bi may posé parce que man lu nekk dama ciy réfléchir mhm. gis nga Covid bi tax dama ciy bind mhm. euh, dama ci sensibiliser ba ba sonn mhm. euh, pourtant du ma kii mais damay partir rek parce que communication moom moom moom boo xoolee ay fee war nga ci mën a wax euh, waaye tey suñ defee test massif nañ testé ñett tey suñ jëloon suñ group bi ñun ñett ñu nekk fii ndey kumba mhm. ñu teste ñu fekk ñun mhm. mooy massif bi quoi mhm. parce que ñun ñett fi nekk ñun ñëpp ñu testé ñu testé nañ ñu tey le 10 mai wala le 9 le 10 tey lañ ñu teste mais amuñ ko tey mais mën nañu dem fii ak semaine ñu am ko wala gannaaw suba kon test massif boobu su ma gis-gis bu gàtt amul sens lan lay jëriñ non lan lay jëriñ man stratégie Sénégal ñoom fi ñuy demee daal mooy ku am symptôme yi nga dem ñu xool la. waaw ak cas de contact ah, yeeg yooyu yëpp ñu ngi leen di boo xoolee en tout cas ñoom stratégie. si hmm. test ciblé am na ñu mais état bi eh, est-ce que am na ay koppar sax réellement pour def test massif. kan état bi. waaw est-ce que am na ay koppar. pour def test massif. man parce que ça c'est de l'argent. xam nga fii. moo tax euh, pessimiste baaxul. Hmm. Euh, suñu réew yi amuñ doole dëgg la. Hmm. mais quand li ma lay wax capacité de résilience suñu état yi wane nañ ko. bi ñuy wax mille milliards yi nit ñi dañ doon rêver gars yi dama doon lii seen commentaires yi bu ñu sonal le Sénégal est en banqueroute mhm. mais pourtant ñu ngi dem matériel médical bii ñëw et cetera bi xam nga crise bu amee euh, crise bu amee dañ ci war a jàngat xool faay yi nga xam ne man dama nangu mhm. en toute honnêteté que suñ plateau médical bi des na des na lu bëree bëri mhm. mais loolu constaté nañ ko ñu ngi koy corriger dama nangu ne tey euh, on a toujours négligé nos personnels de santé. Mhm. muy état muy population joxuñu leen woon gëdd bi ñu leen jox nos force de sécurité et de défense et cetera euh, tous les acteurs aujourd'hui qui sont dans le Covid 19. Mhm. mais ku ci nekk xam nga ne gëdd bañ leen waroon a jox joxuñu leen ko mais tey njàngat gi crise bi. Mhm. on doit apprendre dans une crise on doit apprendre. et corriger nos erreurs. bu Kebe euh, ku la xam-xam la si euh, yëngatu ci lépp lu soxal àq ak yelleefu tout temps ki sànq sax maa ngi koy wax nekkoon nga fi euh, directeur bu protection de l'enfance et des groupes vulnérables bi nga xamante ne actuellement bàyyi Diouf moo koy gérer kon nga wax si xale yi dafay ne mais dama lay laaj déjà yow lan moo la dugal si kaas bi ngay kaas wala yëngatu bi ngay yëngatu ci lépp lu soxal rek àq ak yelleefu tout temps yi waaw pour suma militantisme ci droit de l'enfant mm-hmm. euh, xam nga man nga man mm-hmm. dama yàgg gëm ne dañu war a tabax réew mm-hmm. mais boo koy tabax ci xale yi nga koy jaarale loolu moo tax ma nekk jàngalekat d'abord parce que dama gëmoon ne éducation war naa ci man def suma en dem ma gis situation ay formation intéressé ma euh, dama dem ba sax suma maa ngi bind maa ngi def benn thèse boo xam ne sur les mm. représentations de l' enfant mm. suma master mm. de boo xam ne ni def naa ko sur les représentations de l' enfant ci suñu société yi mm-hmm. et cetera kon donc boo xoolee euh, ci wàllu euh, jàng gëstu maa ngi ci def di gëstu aussi di jàng ci ci man euh, boo xam ne naka la ñu war a yoree ay programme yuy aar ay xale mm-hmm. ak ay droit wu xale yi mm-hmm. donc yàlla def entre temps ñu nommé Euh, ma nekkoon d' abord conseiller technique gu ministre de la jeunesse. Mhm. xam nga loolu sorewul. Mhm. ma jógee fa nekk conseiller technique gu ministre euh, de la femme. Mhm. soxna Aïda Mbodj. Euh, nekk conseiller technique am chargé de l' enfance. jógee fa ñu def ma coordonnateur u projet de lutte contre les pires formes de travail des enfants. ñu jógee fa ñu def ma boobu ci Awa Ndiaye ministre la woon. Ndeye Khady Diop bi ñëwee. jël projet yi ak laa dugal ko ci direction bi confier ma ko muy direction bi aar xale yeeg mm. xam nga donc président de la république bi ñëw aussi te bi ma koy confier bon c'était un décret du président mm. Wade nest pas mm. donc ma jógee fa euh, dama lay wax ne may fàttali sax bi may def sama mémoire voilà si yow laa ñëwoon kon euh, <laughs> mm-hmm. euh, loolu mm-hmm. yàlla mm-hmm. peut wax naa la ne compétence yi maa ngi ciy ut maa ngi koy ut partout parce que jàng du wees. Mhm. dañ koy continuer di ci gëstu. Mhm. mais yàlla daf ma ci nattu. ba nga xam ne le 16 juin. Mhm. sama doom taaw bu góor. waxuma bu jigéen mais bu góor. le 16 juin. la judd la judd 16 juin mooy journée de l' enfant africain africain dafa am su kilifa gu baax ku ma ko doon wax mu ne ma mm. yow nag yàlla boole na la ak xale yi. dëgg la donc. Mm. loolu yàlla moo ma ci nat sama kër. Mm-hmm. noonu laay organiser woo. Mm-hmm. maanaam loolu laa gëm man am nag doyen boo xam ne nii bi ma nekkee ci suma parcours boobu. Mm-hmm. muy le doyen Mamadou Wane ñu koy wax Mao. Mao mais di exemple. koo xam ne nii tey lépp lu ñuy def ci wàllu protection xale aar xale. Euh, tey man en tout cas royukaay la ci man mm-hmm. mu encouragé ma ci encadré ma ci saa dama koy wax donc boo xoolee destin ngi ci mm-hmm. mais sensibilité ngi ci mm-hmm. kër ga sax du ma du dañ ko xam ci man ku ma bugg a merloo sax da ngay da ngay jéem a kii xale damay romb xale ci mbedd sax euh, même attitude laay am donc yow nga bëgg sa doom nekk ci condition yooyu ba pare nga bëgg doomu jàmbur nga romb ko mu nekk ci situation difficile mais sa yoon nekkul ci mais bu boobaa kon du sensibilité. donc mu nekk image bu ñaaw. Euh, waaw euh, Bassirou Kébé parce que boo génnee ci mbedd Sénégal yi mbedd Ndakaaru yi euh, xale yi ñu ngi yalwaan am na ay enfant talibé yu bàyyeekoo ci ay daara am na enfant des yu tumuranke mhm. ban ñu gis ni tamit Sénégal bokk na tamit ci réew yi nga xamante ne dañu seetaan xale yi ñu ngi jalgati seen àq ak fu doomu aadama même bu fekkee ne am na kuréel yu fi nekk di wax droit de l'enfant. Mhm. am na ay organisme yu fi nekk di wax droit de l'enfant am na yu baree droit de l'enfant mais soo génnee ci mbedd mi danga naan ñooñu maanaam kuréel yooyu amul benn njëriñ ak sax kuréel yi nga xamante ni état bi teg na ko pour ñu aar euh, li nga xamante ni mooy tuut tànk yi rawatina nag si jamonoy euh, crise bi euh, am na dispositif bu état bi jël en tout cas lan nga ñu si mën a wax exposition bi nga xamante maanaam xale yi ni ñuy jalgatee seen ak ak seen yelleef ba léegi au Sénégal. wala euh, il faut aussi. Ndeye Comba mm-hmm. mm-hmm. c'est important. parce que temps waroon nañu wax ci xale yi lu bëri. c'est dommage d'accord dommage. Mm-hmm. mais mais. Mmh. prochainement. prochainement. Euh, mmh. donc ma gàttal kon. Mm-hmm. Euh, tey Ndeye Comba. Euh, ñu ngi wax ak droit de l'enfant ak ak yelleef mais il faut ñu nangu aussi que pays africain yi. toujours li lay wax ci innovation yi africain yi jël dañoo wax aussi devoir de l'enfant. tubaab bi ñoom la ñu waaw mais Afrique. la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant dafa wax droit et devoir kon xale bi am na àq ak yelleef mais am na lu ko war ci ay parents respect waajuram ak yooyu et cetera mm-hmm. Mm-hmm. tubaab yi ñoom loolu ñu ko kon ñun ñu euh, conception tubaab bi nga xam ne nii mm-hmm. président de la république euh, bi may recevoir ñuy waxtaan euh, ci situation xale yi à chaque fois toujours buy wax ak yow da koy wax ne la dafa am loo xam ne ñun suñuy réalité la mooy xale dafa war déglu baayam ak yaayam ak magam donc nga xam ne kon kii li ma lay wax ni honnêtement mhm. Mhm. c'est comme ça sa conception mhm. des choses man sax am na lu bëri lu mu dindi ci man parce que ma dama daan wax droit rek droit mais sooy wax ak moom tu te rends compte que kii kat mu ngi lay apporter un plus plus par rapport waaw donc kon loolu ñu réglé ko noonu sénégalais yi xam ne jëluñu tubaab yi rek di leen copier par rapport ak loolu maintenant xale yi dañ war a jàngi xale yi dañ war a nekk ak seen i waajur xale yi waroo jël xale di ko bundu xataal di ko def loo xam ne ni ñun ñëpp ñu ci teg suñu bët violence yooyu yëpp ñu ci teg suñ bët xale waroo ko jël jógee ci dëkk mm. dajale leen dëkk ba nga mën fa jàngale alxuraan def fa daara parce que mag ñi noonu lañ daan def lu ñuy wax ndox fam daan taa mu ngi fay taa léegi mm-hmm. boo demee Touba nga dem Tivaouane nga dem Medina Baye dem Ndiassane dem euh, Yoff Layani euh, nga dem Medina Gounass mm-hmm. et cetera mm-hmm. foo dem ñu nga yor ay daara suñ Saaliw daaraam ya ñëpp ngi fi waaye doo dégg mukk ñuy def yenn condition duñ jël daara yi indi leen réewu taax mm-hmm. mais nga jël ay xale dajale leen jëlee leen ci beneen réew bu nekkul Sénégal wala ci biir réew mi fu ñu mën a toog jàng fa alxuraan nga dugg indi leen ci biir taax mm-hmm. xëy di leen jox pot ne leen dem leen yalwaani ba ngoon mm-hmm. indi leen xaalis koppar bi nga jël dugal sa poos lii ngay verser téeméer wala ñaar téeméer sax yokku na nga fekk kër gu ñuy tabax pareegul nga dugal leen fa nga fekk kër gu yàqu nga dugal leen fa mais am na image yoo xam ne soo ko gisoon ci opération de terrain yi. Mhm. yi gars yi di def fan yi am na ñoo xam ne biñ ko gisee dañ jooy. Mhm. parce que foofu am naa suma benn nijaay imaam la jàng alquran afisu mhm. euh, mais dafa ma ne bi ma ko envoyé image daf ne ma lii ay mbaam xuuxo fi dëkk wala lana fi dëkk ay ma ne ko ay xale lañ fa defoon donc ñooñu la président wax ci dispositif bi muy wax bi muy wax ne ministère de la femme à travers la direction de la protection des droits de l'enfant di ñoxobaay jiite ñuy def liggéey bu am solo ne leen li ma leen jox comme directive mooy xale yi nañ génn ci mbedd mi parce que dañu toll ci contexte Covid 19. Mm-hmm. boo xam ne xale bi tey bi nekkee ci mbedd mi mun na jël jàngoro ji. Mm-hmm. mun na ko wàll keneen. Mm-hmm. surtout que études scientifiques yi wane nañ ne tey xale yi mun nañu porter virus bi. mais du feeñ. du am benn kii bu wane jàngoro ji. loolu science moo ko wane. Mm-hmm. donc xale yooyu nañ leen delloo ji seen i waajur bu ñu leen jëlee xool leen ndax yorewuñ jàngoro ji ba pare ñu delloo leen seen waajur. ñooñu mooy ñi nga xam ne ñu ngi jógee ci catégorie daara yi ma wax. Mm-hmm. mu ne leen am na daara yoo xam ne nga jël kokki joxe naa Tuuba yooyu yëpp. Euh, ak yeneen am na ñoo xam ne dakaar sax. Mm-hmm. ñu ngi yor daara yoo xam ne ni Zeyda Mariam Niass et cetera. mais daara yooyu dañu téye xale fonk ko. mais ñooñu ñu ne leen attention bu kenn delloo ji xale yooyu parce que daara ja kër lay doon. Mhm. te nañ leen encadré bañ respecté norme geste barrière yi rek dimbale leen aussi ba nga xam ne ni xale yi dinañ dund. xam nga loolu ñaaree dal directive mhm. ñetteel bi mu ne leen xale yi nga xam ne ñu ngi ci mbedd mi. te wuñ ci daara parce que loolu aussi foo ñu leeral ko mooy ñuy wax xale fàqmaan yeeg yooyu waaw nga xam ne dañ mhm. nekk en rupture familiale kenn mënagul a gis seen parents jël leen téye leen ci ay centre ñu toppatoo leen jox centre yi ay ressources. Mhm. en attendant. Mhm. que euh, ñu retrouver seen parent. mais est-ce que crise bi su passé Bassirou Kébé loolu dina continuer. ñu a bañatee gis xale yi ci mbedd mi. li la wax mooy état état Sénégal décision bi ñu jël ci mbedd bi ñu jël fi mu même après la crise euh, waaw mooy. dafa wax sax de façon durable. Mhm. maanaam xale bi. buñ ko delloo rek parce que dafa am suivi buñ koy téye foofu. parents yi aussi yoon la ñu lancé leen un appel pour que ñu ñëw. ñu accueillir seen doom yooyu mhm. parce que doom munoo ko jël rek sànni ko wala jox ko nit na ko ay yaxam laa la laaj yow yaay légitimer la violence sur l'enfant mhm. donc contexte covid bi occasion la dama leen crise mhm. mais du daara occasion la ngeen jógee si jëlee xale yi carrément ci mbedd mi non occasion la pour tamit exploitation des enfants maanaam muy état muy euh, euh, sëriñ daara muy parent parent ñëpp moo tax bàyyi la nga tàllal loxo tàggatoo waxtu bi jeex na Bassirou Kébé ma bàyyi la nga tàggatoog auditeurs yi ak internautes yi. waaw waaw ñu mm. leen di gërëm di leen sant di la remercier yow Ndeye Comba di remercier réew mi FM. Mm-hmm. ak seen liggéey bu rafet bi parce que lii yëpp dafa nekk ci cadre. Mm-hmm. liggéey pour Sénégal. pour Sénégal di remercier ñi ñu doon suivre aussi. di baalu àq di baal ñëpp àq su ma juumee man la. Mm-hmm. maa ngi jéggalu di baalu àq. voilà mi ngi noonu ñu koy remercier bu baax a baax ki lee di Bassirou Kébé nekk conseiller euh, bu président Macky Sall en a leen remercier yéen suñu auditeurs yi ànd ak ñun euh, chaque samedi de 10h à 11h Léon Paul Mendy euh, ci technique bi ñu ngi koy remercier bu baax a baax ak ci réalisation bi ba samedi prochain 10h jàpp 11 ci beneen émission beneen thème ak beneen invité ngeen mën a rattrapé wu euh, seetaanat émission bi ci suñu chaîne YouTube Rewmi officiel wala ci suñu portail internet www.rewmi.com wala ci suñu page Facebook rewmi.com jaa ngeen jëf ba samedi prochain incha allah